moom fii indi rek xam nga ñëw immigré si stade bi anteeg Sénégal yëpp ah di ci félicité yooyu ak président ah. ànd ak suma tons Elas Thioune papa ak Younous comme tout le monde ah. ma wax dëgg yàlla nice na quoi xam rafet na mel na ni mu war a mel macha allah daal comme stade yi ci monde bi yëpp ah. waaw loolu loolu moom kuy sportif da nga koy ñaawlu xam nga saaru bis yu mel nii bu ñu ko amee nañ ko respecté sàmm ko xama def nañ ci li ñu war a def le reste mooy sportif yi ñoo ko moom xam nañu xam li ñu leen defal lan la xam nga ñu respecté ko quoi pour man lool la quoi. non man comme li may wax rek. Euh, tey dama ñëwoon fii surtout pour ñëw ci affaire xam nga comme sénégal ah ñëw seet si stade bi ni mu naay see affaire yooyu mais affaire wu combat moom tey waaye. bien sûr. non xam nga lamb moom lamb la rek. ñun ba ñu fiy toll ñoog suñuy grand dañ leen a tàllal loxo ñu may ñu loolu moom xam nga euh, maa ngi leen di félicité di félicité euh, Reug Reug di encouragé guy gi te xam ne xam nga la bo man nag xam nga man pour mbër yëpp laa fi neex la ah. man moom néew ma fi di taamu adversaire kii la wala kele non maa ngi entraîné maa ngi xaar combat anyway ku ñëw rek mooy loolu quoi. mooy li ma lay wax man làmb ji maa fi ëpp ay adversaire loolu moom dafa leer quoi loolu moom leer na Sénégal yëpp. waaw te xam pare naa pour bëre ak mbër yëpp daal.